coordinateur du collectif des de la GCO. Aujourd'hui, nous sommes ici pour une marche de protestation contre la décision illégale, injuste que GCO a prise pour licencier arbitrairement des travailleurs. Et par la suite, la même GCO a poussé la CIS à licencier également 33 travailleurs. Donc aujourd'hui, nous Aujourd'hui, nous sommes ici pour défendre nos libertés. Aujourd'hui, nous sommes ici pour remercier les travailleurs dans leurs droits. Nous sommes au nombre de 55. Mais les 55, c'est du côté des GCO e et des CIS. E Mais Donc le, le compte total est de, 5, euh, de 62 personnes qui sont la même entreprise. Nous à plusieurs reprises des au niveau du, de l'inspection de travail nous a donné raison sur en à la GCO que ce qu'elle a fait, c'était illégal, en commençant par un, un confinement par nos textes, qui n'a pas été prévu par nos institutions. Et pour euh, ce même confinement, je sais, on n'a même pas demandé l'autorisation de l'inspection du travail. L'inspecteur était surpris d'entendre qu'au Sénégal, il y a des travails qui sont confinés. Il y a des travails qui étaient logés dans de mauvaises conditions. Il y a des travails qui étaient logés Et il y a des travailleurs, ont accompagné l'entreprise en cette période de crise qui a affecté toutes les entreprises du monde jusqu'à dépasser ses prévisions Depuis ce licenciement, la situation de ces victimes est drastique, est dramatique, est caouteuse. Ces, ces, ces, ces travailleurs sont enterrés vivants. Parce que pour un père de famille, pour qui, même en percevant ses salaires, ne, ne parvenait pas à assurer la dépense quotidienne, si toutefois aujourd'hui on lui prive de son salaire pendant cinq mois, en cette période de conjoncture, en cette période de, de crise sanitaire, une entreprise responsable, une entreprise soucieuse de ses travailleurs n'aurait pas eu cette pensée-là, n'aurait pas eu cette pensée radicale, cette pensée, agresseuse. Donc c'est une entreprise pour la population. Parce que les gens ne on parvenait à récolter cinq millions ou 10 millions pendant une saison parce que nous dépendons de notre euh, culture maraîchère. GCO a pris ces terres-là. GCO nous a, nous a confis, les a confisquées. GCO a, a fait l'exploitation, ensuite a licencié nos enfants. Ça ne pas passer. Ça ne pas passer. damay sant mbooloo mi fi teew yëpp di sant mbooloo mi ak ñi nga xam ne ànd nañ ci di sant également waa genre yi nga xam ñoo couvrir manifestation bi li ñu fi dajale tey mooy dañuy bañ nooteel dañuy bañ buumu njàm bi nga xam ne si daf ko bëgg teg suñu askan ginnaaw bi ñu tooñee charte jargat ji charte réew mi jël ay tëj leen ci loo xam ne lu seen coobare te état yëgu ko inspection yëgu ko kenn yëgu ko déetuwaay ñu loolu leen ci néeg yoo xam ne baaxul déetuwaay ñu xiifal leen ñaari fan ñoo ñu génn ne da kon bàyyi leen ñu ñëbbi suñu kër ñu ne déet loolu lañ fiy bañ ku wax ñu dàq la fi ñoo fii buur di fi bumi alors que ñu ne Sénégal dafa am yoon kon loolu lañ bëgg a xam ba xam Sénégal bu fekkee am na yoon bu fekkee président de la République dogal boobu mu joxe amul ma Samba amul ma Demba kon am na gestion bu ñëw tegg doxalu président te doxalu président ko tegg bu ne yoon dafa war a dal sa kaw kon loolu lañ bëgg a xamal askan bi ñu loolu moo ñu fi tax a taxaw tey li nga xam ne moom lañ ci dàq ñaar fukk ak ñaar la gestion dàq ñeen ñi dàq fanweer ak ñett muy CES am na ñeen ñoo xam ne dàq nañ juróom-ñaar kon soo boolee lépp mu nekk euh, juróom benn fukk ak ñaar yoo xam ne dàq nañ ci même entreprise lii bi mu amee ñu dem inspection du travail inspection du travail woo woo kilifa yi ñi nga xam waa GCO seen directeur des ressources humaines teewal leen fa mu xamal leen li ngeen def du dëgg du yoon amul ci charte réew mi ñun yëguñu ko tàgguwu leen ñu kon ñun da ngeen ñoo yàpp ba ngeen bëgg ñëw fii ci Sénégal di fi am seen i yoonu bopp li mu leen di xamal mooy ñi mun leen a dàq tey mun leen a dàq te ñii fu ñëpp ñun di dem du ngeen mën a am dëgg si yoon waaye ñu ni déedéet nit ku weex du am nit ku ñuul du am dëgg si nit ku ñu ñoo xam ne bañ seen bopp bañ seen askan topp ci ginnaaw tubaab bi di yàppari yàppari ba tey ñu nar a taxaw sànq seen askan loolu lañ dul nangu waaw bi ñu dàqee ba léegi euh, juróomi weer a ngi nii ci borom kër bi nga xam ba muy liggéey sax loxoom jotu loon ginnaawam nga dàq ko xañ ko salaire am tas njabootam tas këram fii am na si ñoom mi sëy yi tas am na fii ñu nga xam ne fi ñu nañ leen fa ñi nga xam ne fayatuñ seen courant ñi nga xam ne fayatuñ seen seen ndox kon mu nekk ne en tant que ay liggéeykat yoo xam ne dañoon daan suñu doole mérité wuñu lii te président de la République bi nga xam ko war na cee jóg wax Mamadou Diop dëkk fii ci jogo di cosaanu Diogo di jiite association bu ñuy wax ADID association pour le développement de Diogo et environ te am ñu ñu dàq ci mbir mi ñoo xam ne dañoo bokk ci biir association boobu waaye bu loolu jàllee association boobu Sénégal ñëpp ñoo ko bokk waaye li ñuy wax ci mbir mi te duñ ci gan ndax xam nañ ko ndax dañ doon fekk réunion yi dañuy wax ne société française bii ñuy wax GCO wax fa dëgg yàlla xëtt nañu sartu réew mi ndax jalgati na ñu waxu chef de l'État président moo ne woon ci biir mbas mi bu kenn dàq benn liggéeykat GCO confiné na nit ñi ci condition yoo xam ne matewu ko ñu xiif ñaari fan ay ponkali magi jëmm nag yu am doole nga xiifal leen ñaari fan su ñu jógee ni jox leen ñu ñu lekk wala ñu delloo ñu ci kër yi loolu dama yaakaaroon ni CCO daf leen waroon accompagner waaye warul woon def ñu lu lu metti lii mu leen def dagg seeni i salaire dàq leen ci lu dul yoon tëj bloqué seen ay compte tasaare seen njaboot loolu chef de l'État ci boppam yow la ñuy tàllal loxo nga jëllu ñëpp régler lii ci na mu gën a euh, gaawee beneen bi ci des Sénégal dëkku yoon la inspection du travail moo yilif mbépp liggéeykat dem nañu fekk ay réunion man ñu toog ñoom amuñu benn dëgg ba mujj tubaab ya nekk France ñoom ñooy gérer réunion bi waaye la ñu mujj wax mooy lan loolaa ñaaw loolu a metti mooy dañu wax ne ñoom société bu mag lañu entreprise bu mag lañu. dàq nañu ci lu dul yoon. waaye seen diggante entreprise mayu leen ñu dàq ay nit ba pare di leen jëlaat ñu boddi doomi ay sénégalais dàq leen loolu ñaaw na parce que diggante entreprise. bu tubaab suñu boole suñu demee ba mu ëpp doole africain bi ci biir dëkkam loolu noteel la président Macky Sall yow nag yaay boroom réew mi su fekkee France moo moom Sénégal ñu xam ne kii lii dafa mën te ñàkk su fekkee république république la ñu bu moom suñu bopp ñu xam ko te mooy lan ñii ñu delloowaat leen seen ay aq parce que lii ñaaw na trop trop bu dee dëkk bi nag li ñuy wax jogo ak li ko wër ak société yi fi nekk ak li nga xam ne moom la ñuy war a sartonte ak ñoom suñ ko doon wax rangoñ sax dana tuuru kon lii kilifa yi ngeen jóg ci parce que trop c'est trop. Ndeye Diallo laa tudd endel bi fii ko def sans borom kër ak i magam ñoo ko keroog bi nga xamee ni dafa dañ leen bi ñu koy wax dañ ne dañ leen di jël jël seen njaboot man juróom-ñaari fan laa ci xëy ñu dàqam te gis ñu ne ma mënatoo xëy de ma tëdd ma ma xëy ñu ne ma dañ tey dañ lay génn ma daal di génn fi fi ñu ko def nii man mii di jigéen donc bisaab laa fa daan bay daan fa bay ñebe man mii maa ko daan bayee saa bopp dégg nga jëluñu sama doom jëluñu sama jëkkër jëluñu sama leen fu ko teg teguñu ko fenn teguñu ko fenn jëluñu sama doom fi nu teg MDL bi nii sama jëkkër ko moom ëpp doole dong lañ ko jëlee ba nu ma jëlee juróom-ñaari fan lañ ma fi del dàq ma ni ma ni ma daal di may jox lañ may jox ni ma génn. na nga fa doon liggéey. ba ma fay liggéey dañ ma doon ci ménager bi lañ ma doon def ak restaurant ñaari juróom-ñaari fan laa fa xëy ñu ne ma tey dañ laa boole ci ñun waañ te bi fii fiy dugg dañ ñu dinañ la jël wala ñu jël sa doom wala ñu jël sa jëkkër jëluñu def nu ci dara. samay doom a nga ca toolee di roose fanu ko def donc. yow yow da nga bokk ci 82 personnes ma di ko yàgg ma bañ ma dàqee waaye li ma métti dinaa ko wax. Ibra Fall président commission emploi maam dañuy ànd ñaawlu rek li xew fii gëstoo li muy def ci zone Diogo bi dama yaakaar ni sax état ko parce que population bu toll ni zone Diogo dund leen lu dul bay bay rek la ñu dund ak sàmm usine bi ñëw jël seen tool yëpp yàq environnement bi kenn xamatul nit ñi lan la ñuy nuru. wén ñu ko waat ñi nga ni bu ñu jëlee tool dañ leen employé tey taxaw di leen dàq dàq dëppawut ak yoon loolu nag yaakaar na bu fekkee Sénégal am na justice président war na cee wax président waxul gën a fulal lii parce que tey bi nga seen nii ñoom ñooy jaay seen i di dem ci gaal yi parce que amatuñ fu ñu nañ sa tool jël bi na jëleen nañ la te barki dem rek gestion jël na 21 personnes doko amoon na ci 22 kon ñoom dañoo toll ci xeex ak population bi te yaakaar naa bañ fi soog a ñëw soxla suuf si dañu doon naxtaan di dig loo xam ne defuñu ci dara kon mel na gestion muy volet social muy lépp li mu digal askanu jogo 90 pour cent yi defu ci dara lii bëgg nag état jël ci ay responsabilité balaa ci population bi jógal seen bopp loolu lañ bëgg na yëgal population bi ñu xam ko Mamadou Lissey nekk ci les bokk de GCO dàq nga si ni GCO dàq na après trois mois de confinement et demi après trois nga bàyyi sa njaboot bàyyi say jabar bàyyi say doom GCO amul lenn lu mu lay faye lu dul un lettre de licenciement moo ñu dellowaat suñuy kër ñu yaakaar ne bu fekkanteeg ni on est dans un pays de droit le président de la république war naa jël ses responsabilités tey ji mu xamal ni GCO lii mu nekkee du dëgg du yoon parce que dem nañ inspection du travail am fa dëgg ñu ñoom ñu nee nañu entreprise bu mag la ñu mënuñu ñoo wax ba pare di si delti ginnaaw donc kon yaakaar naa ne président de la république mi nga xam ne moo gën a woon ordonnance bu kenn dàq si période mbas mi Michel Privé le le directeur de GCO dinaa dàq te kenn du ci man dara yaakaar naa ni il a défié les l' te yaakaar naa ni le président de la république war naa jël toutes ses responsabilités delloowaat ko si place am parce que un un un français mun a jóge fii di tegg si waxu président de la république vraiment ñu ngi sant mbooloo mi fi tase ñëpp li ko dalee jogo daaru faal ba keroog ngay àgg daaru xuddoos mbooro ñu ngi leen di sant di leen gërëm mbooloo mi jekk na def nañ ko ci civilisation tey jii ku fi ñëw di nga xam ne c'est des gens responsables amul xuloo amul xeex amul dara